yal nanu yàlla yendale noonu ci jàmmam ñuy ànd ak yéen ci darsu fajar yi ba tey ñu toll ci awwalu maa yajibu alal mukallafi li njëkk a war mukallaf démb ñu ngi woon ci xifzul lisaan ñu ne war na mukallaf mu wattu làmmiñam waaye làmmiñ bi lim ci njëkk a wattu mooy minal fahshaa'i ci lu ñaaw ci lu bon bu dee wax bu dee jëf alfahsha mooy loo xam ne mbonam jéggi na dayo dafa bon ba mu jéggi dayo ci wax ak jëf loolu dañu tere ab jullit mu génne ko ci làmmiñam borom bi tabaraka wa baat yu mel noonu mu indil ñu ko ci alquraanul karim mu ne moom yàlla wa yanha anil fahshaa'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkaruun moom yàlla mu ngi tere ci wax ju ñaaw jooju tudd al fahshaa yàlla moo ngi tere al munkar mu ngi tere mbewte yàlla nee na maa ngi leen di waar ndax ngeen fàttaliku borom bi sax indil ñu julli pour mu war ñoo tele ci yu ñaaw yooyu mu ne inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala zikrullahi akbar yàlla nee na julli day tere nit ba wax yu ñaaw yooyu nga xam ne jéggi na dayo ci ñaawte jullit bi su tàmmee julli julli gi dina ko aar ci loolu borom bi nee na maa ngi leen di tere encore munkar waaye mu ne wala zikrullahi akbar tudd yàlla day jaamu yàlla day moo gën a rëy lépp loo gis borom bi du ñu wattandikuloo seytaan ndax seytaane moom chaque jour moo ñuy def loo lu ñaaw loolu di fahsha mu ne innama yaamurukum bi suui wal fahsha wa an taqulu ala ma la taalamuun moom seytaane moom day moo leen di diggal ngeen def lu bon lu ñaaw waaye ngeen wax wax joo xam ne jéggi na doyog ci mbon borom bi nee na maa ngi leen di dénk ngeen moytandiku balaa seytaane di leen waxloo ci yàlla lu ngeen xamul wa an taqulu ala allahi ma ngeen di wax ci yàlla lu ngeen xamul moo tax ñu ne baatu fahsha mooy lu gën bon lu bon ci làmmiñ walla ci jëf ci ay cër borom bi nee na seytaane day da leen di digg ñàkk di leen diggal lu ñaaw ci wax walla jëf ash di yaidukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha loolu yàlla tere leen te mooy wax ju ñaaw ba jéggi dayo seytaane day moom ñee dee ñëw di leen encourager waaw di leen puuse pour ngeen wax ko moo tax jullit balaa muy wax ndax xalaat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax balaa ŋaamam yi ubbeeku balaa tuñam yi ubbeeku na xool ana lan la war a génne ci gémmiñam ndax yàlla nee na seytaane day def leen di dig ñàkk waaye di leen digal ngeen wax wax joo xam ne egg na ci mbon fu kenn dul mën mënta naat borom bi tabaaraka wa am nañ na mu ne am na fi ñoo xam ne bu ñu defee lu ñaaw loolu wala ñu def bàkkaar ñu jéggalu yàlla yàlla baal leen walladina ida faalu fahisha aw zalamu anfusahum zakaru llaha fastagfaru li zunubihim borom bi nee na am na nit ñoo xam ne ñu ngi fi saa yi ñu tarxiisee wax wax joo xam ne wax waruñ ko wax wala ñu tooñ seen bopp ci bàkkaar mu ne dañuy daw tudd yàlla commencé di jéggalu astagfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah al azim allazi laa ilaha huwa al hayyul qayyum wa atubu di jégglu yàlla ñu laa di jégglu ndax yàlla baal leen borom bi tabaraka wa taala nee na moo ngi tagg jigéen ñi nga xam ne dañoo sangewu téye seen bopp ba duñu njaaloo ba duñu def wax ju bon gis ngeen njaaloo sax sunu borom subhanahu wa ci faahisha yooyu la ko dugal ndax dafa bon moom njaaloo mu ne wala taqrabu alfawahisha ma zahara minha wa bu leen jege lépp loo xam ne dafa ñaaw ci wax ak jëf ba jéggi dayo la ca feeñ ak la nëbb bu leen ko jege kon doomu ndey yi dafa war cib julit mu kàllaf mu wattu làmmiñam ba fahsha boobu nga xam ne moom na boroom téere bi bind nga xam ne boroom xam-xam yi mi ngi wax su dee wax la ñaaw na ba jéggi dayo bu dee jëf la ñaaw na ba jéggi dayo ab jullit li mu war li ko war mooy mu téye loolu làmmiñam bañ a dugg ci loolu kon bokk na ci li ñuy aare làmmiñ nga sàmm ko ba du tarxiis di la indil ëllëg meru yàlla tabaraka wa taalaa ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na li ëpp ci liy dugal nit ñi safara ëllëg yowmal qiyaama mooy mbuubitu làmmiñ mbuubitu làmmiñ mooy boyal sa gémmiñ rek la neex wax koo gis teg ci daram dara koo gis sànni ko dara amul kenn koy xool ba gis ci moom lu baax lu bon rek ngay seede ci nit ñi doo wax ci ñoom lu baax soo leen gisee di wax ci ñoom lu baax bu ñu demee ngay teg seen der loo xamante ne yow sa bopp xam nga ni du dëgg waaye ak coxorte moo la jàpp ba munoo leen seedeel ak mbaax te boo leen gisee nag di leen bëgg a wan nag daf leen ay xarit daf leen ay mbokk daf leen ay am di jàmm daf leen ay soppe waaye suñ la wonee ginnaaw rek nga jël jaasi walla nga jël paaka dagg seen yàpp di lekk lu ne nga dugg ci lu ne ci mbon loo xam nga koy wax loolu ab jullit na ko moytandiku mbokk yi ab jullit na moytandiku baat bi nga xam ne mooy baatu faaxis nga xam ne mbon na bon na ci wax bon na ci jëf lañ la sant mooy la ngay njëkk aar ci làmmiñ mooy lu mel noonu nga fexe xeex ak seytaan ci melokaan yu bon yi mu lay bëgg dugal mooy bañ nit ñi bañ képp ku baax bañ lu baax bañ quraan bañ sunna bañ tawxiid bëgg bidaa bëgg lu bon loolu ku nekk war ngaa xeex ak sa bopp ba nga sori ko mbokk jullit yi suñu borom subhaanahu wa nee na jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy njaaloo ci seeni jigéen yéen jullit ñi na ay seede yu leen seede ba mat ñeent wallaati yaatiina alfahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum borom bi nee na jigéen ñi nga xam ne ñooy def lu bon loolu nekk njaaloo nekk lu ñaaw ci seeni jigéen yow góor na nga wut ñeenti seede yu la seedeel ne sa soxna dafa njaaloo beneen aaya bi mu ne jigéen ñi bu ngeen leen fase nañ toog ci kër yi bu ñu génn lu dul ñu njaaloo ngeen seede ci ñoom ne dañuy njaaloo ngeen génne leen illa an yaatiina bi faahishatin mubayyina jigéen bi bul ko génn kër gi lu dul nga gis mu def faahisha bu leer bu biir lu bon loolu ci wax walla jëf ba mu leer na ci yow def na ko nga dog ko génne mbokk jullit yi borom bi tabaraka wa taala la mu tëje baat yooyu mooy inna allaha yaamurukum inna allaha laa yaamuru bil fahsha yàlla de du digle am na ñoo xam ne dañuy def lu bon soo leen ne yow lu bon li tax nga def ko ñu ne yàlla la neex bu neexoon yàlla du ma ko def su ma ko defee rek yàlla ma may kàttan may ma doole may ma alal lu ma ko defee <laughs> allahu akbar yàlla ne xanaa xamu leen ne inna allaha laa yaamuru bil fahsha ataquluna ala ma la taalamuun yàlla du digl lu ñaaw ci wax ak jëf da ngeen di wax ci yàlla loo xam ne xamu leen ko da ngeen di yàlla xam ne xamu leen ko dina digal nit muy def lu bon xoolaat leen li ngeen di wax xoolaat leen li ngeen di def kon ci wattu làmmiñ yow jullit li ngay war a njëkk wattu sa làmmiñ mooy wax joo xam ne ñaaw na ba jéggi dayo ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu mu aaral nu sunu làmmiñ yi aaral ñu sunu diine aaral ñu sunu bopp aar sunu njaboot ñoo ngi jéggalu kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.